ca troisième place baa Gaskel Gaskel am na benn avertissement Gaskel ceinture bleu Papa Gueye muuma ceinture rouge Kortoro Ndiaye Djidé Ndiaye même Mbagnick Ndiaye Lama Lam Jambar le 14 mai 2021 2023 à saint Moda waaw waaw. Gaskel doomu Palmarin Papa Gueye doomu Sowal di bëgg waa Palmarin Madi Sarr borom Écotaire nee naa leen su ngeen bëggee ay briques yu baax te wóor dem leen Palmarin kër monsieur le maire Mame Singi Sarr ngeen laajte son frère Madi Sarr ñoom ñooy waa Écotaire waaye bëgg Papa Gueye moom a gaskal waagno siire wo ngot ke cunga xama jabel kawoon mater gaskel Papa Gueye Papa Gueye am na avertissement gaskel am na avertissement a bisib le waat na combat ba daan na Papa Gueye Gaskel daan na Papa Gueye wala arbitre wax waaw waaw Gaskel daan na ko de Gaskel daan na Papa Gueye Mouma